ci ndigalu sëriñ Muntaqa Mbakke xalifa général kulu murit yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér-gu-yaram sëriñ Abo Baraka Mbakke xalifa sëriñ Falilu Mbakke ak mboolem njabootuk sëriñ Falilu Mbakke gépp ci kilifteefu sëriñ Isxaqa Mbakke moom sëriñ maahadu minanil baaqil qadim li karim wa tarbiyati al kër sëriñ Moustapha Bachiru ci njiitul soxna Muslimatu Mbakke moom sëriñ Modou Boussa Dieng ginnaaw bu leen nuyoo ziar leen ñooy di fàttali mbokki julit di mbokki taalibe yi bisub juillet 2018 ñu koy yëgal mbokk yi xarit yi walëri yi rawatina képp koo xamante si alquran ak ñooñ la mbokk yi nag soxna muslimatu Mbàkke ma ngi ànd ak waa daara ji di ko darajaale ay kilifaam sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Touba Alaaji Baara Mbàkke Falilu ak sëriñ Jili Mbàkke moom sëriñ Modou Boussa Dieng waaye nag invité d'honneur bi ci wàllu ndongo yi mooy soxna Ndey Jaara Ngom bis boobu yi buñ xëy des amal jàng alquran waaye nekk daara ja bu ñu àggalee danañ fa joxe ay neexal bis noonu di bisub alquranu karim ñan ñoo koy woote waa maadu meneen albaqi alqadim li tahfid alquran alkarim wa tarbiyat alislamiya kër sëriñ Moustapha Bachiru si njiitul soxna muslimatu Mbàkke moom sëriñ Modou Boussa Dieng kañ la war a doon dimanche juróom-ñetti fan ci weeru juillet soxna si nee na ma ngi séntu ñëpp képp koo si bëgg am lu gën a leer mën woote ci 76